mbokki Sénégal man maa ngi tudd Abdoulaye Sagna di directeur de cabinet du maire de Yeumbeul Sud sama génn bi dara waralu ko lu dul génne ay leeral pour rétablir vérité par rapport ak sorti bu benn jeune bu tudd euh, Mamadou Dieye def te bokk ci parti Pastef indexé directement le maire Bara Gaye ci ay euh, indisponibilité wu certificat de résidence loolu njuumte la wala book tayef la waaye ku xam na ni bépp citoyen bu soxla certificat de résidence boo ñëwee ci biir mairie Bara dañ la koy délivrer ndax monsieur le maire jël na ay disposition bu yàgg lu jiitu sax ñu ubbi commission bi euh, woo na kii ñuy wax Omar Sow di responsable politique APR délivrer ko certificat de résidence photo ak moom ñoom ñaar ñu partagé ko dans tous les réseaux sociaux kon kooku wane na ni taxaw na pour délivrer képp nga xam ne ayant droit nga certificat de résidence yemu ca dafa joxe instruction yu ferme lu jëm ci état civil bi wax leen ni bépp citoyen wu yëmbal sud bu soxla certificat de résidence te nekk dans les règles bu mu tardé nañ ko gaawal ndax jamono ji ci jamono joo lañ toll. kon euh, ba tey fii ñuy waxee gisaguma benn citoyen yëmbal waa bu la ne dem naa ci suma quartier am naa certificat de domicile ñëw naa ci biir mairie bi soxla certificat de résidence te amuma ko kon li nga xam ne bi moom la jeune boobu wax propagande la boo xam ne bii waa APR ak Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo koy diffuser ñoom ñooy jéem a dawal bruit comme quoi. mairie Bara yi dañuy téye ay résidence loolu dafa am lu ñu ci jublu li ñu ci jublu mooy bëgg sous préfecture bi nga xam ne bii léegi gouverneur jox na leen digal pour ñu délivrer ay certificat de résidence ñu sukkandiku ci loolu pour mën leen ñoom jox directement ay certificat de résidence ci nit ñi nga xam ne ñoom la ñuy transféré ci yeneen commune ak yeneen localité yu sori te ñu am ci ay firnde yu leer ngir mën leen a dugal ci list électorale yu Yeumbeul Sud loolu moom bu ko comprendre woon du waxee nii kon moom buy wëlbatiku di laaj maire Bara Gaye fan la bokk moom la ñuy laaj moom fan la féete ndax moom il fait le jeu du pouvoir ndax ñoom loolu la ñu bëgg ndax loolu moom moo leen arrangé donc na toog ba gis yëmbal waa bu soxla certificat de résidence te amu ko mu doog a wax. dégg naa ci biir kàddoom mu ne euh, ba ñu ñëwee foofu samedi bi dañoo soxla seen certificat de résidence te amuñu ko mais mënoo am certificat de résidence samedi parce que samedi ak dimanche ku ne xam na ni administration du ñu liggéey donc officier d'état civil du xëy si. kon ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon di déposé amoon nañ seen certificat de résidence bu yàgg bu la neexee am ko lundi mardi xaar ba ba ngay am jot dimanche bi dem déposé ji kon boo toogee ba samedi wala dimanche di ñëw pour wut certificat de résidence mais mënoo koo am donc tamit il faut ñuy légaliste ci côté boobu leneen li ci topp mooy li fi amoon dëmb ci coow amul dara lu ci taqe wala lu ci laale ci certificat de résidence li fa am mooy commission ba dégg naa ko it mu ne monsieur le maire dafa am représentant PDS am fa représentant ñàkk xam moo tax mu wax ndax commission bi dafa logé wu ci biir mairie bi commission boo dem ci Sénégal maire bi escalité dafa am représentant parti yëpp am ci représentant te maire bi tamit bokk ci parti loolu moom moo waral parti bi am représentant monsieur le maire am fa représentant li fa xawoon démb nag mooy les représentants de benn Bokk Yaakaar dañ fa doon nekk di def ay trafic d'influence ki nga xam ne moo représenté monsieur le maire bañ loolu jàppanteeg ñoom ba am seen diggante ñu yóbbu leen police man mii toog di wax ak man maa dem ànd ak ñoom jëli leen ñu juboo toog continuer liggéey bi defuñu fa une de temps kon loolu vraiment épiphénomène la boo xam ne mënul ñàkk ci ay nit ñuy liggéey euh, kon dugal ci ay affaire certificat de résidence loolu ça n'a absolument rien à voir bi ma ko gisee ci réseaux sociaux yi dafa maa sax jaaxal naruñu si woon tontu mais ci ki mu jógee dafa nekk euh, militant parti d'opposition ñun ñu nekk ci opposition kon loolu warul suñu diggante li ñu war mooy ñun ñu jàppante contre APR ñun benn adversaire lañu am mooy Benno Bokk Yaakaar suñu biir dañoo war a danqaloo def benn moo tax may profité ci antenne bi di lancer appel jeunes yëpp nañu génn dem inscrire ji en masse parce que nag Sénégal dafa toll ci beneen phase bu bees boo xam ne mobilisation moom moo mën a tax ñu jëlee fi fi ne loolu nag dañ ko bokk ak waa PASTEF en particulier ndax on est maire maires monsieur le maire nekk maire jeune PASTEF am un leader jeune idéal yi nga xam ne moom la PASTEF di dégager yépp boo ko dee seetlu ci monsieur le maire Bara Gaye da koy gis ci kaw ba ci suuf kon buy interroger wu Bara Gaye fan la féete moom la ñu laaj au contraire moom fan la féete ndax li muy def pouvoir la arranger arranger wul opposition ne xam ne ni transfert ñi ëpp moyen pour def ko mooy ñu nekk au kon bu ñu leen yombalalee wala ñu sàggane euh, résidence yi ba fu ay jógee ñëw rek ñu inscrire la nga dugg suñu ficier mais bu tànneef jotee ñoom ñi dëkk feneen ñooy ñëw tànnal ñu suñu maire te loolu daf ñu ci war a encourager ndax ñoom xam nañu ni ku dugg ci bureau officier d'état civil bu la posé ñaari question dina xam ndax fii nga dëkk wala dëkkoo fi boo fi dëkkul du la jox évidemment certificat de résidence mais ku fi dëkk boo demee ci sa délégué de quartier mu jox la sa domicile boo ñëwee ci bureau da lay délivrer sa certificat de résidence loolu damaa bëgg xelu askan bi yëpp dal ci askan bee tax sax ñu génn pour ñu xam ni loolu amu ci donc les week-ends euh, commission bi mi ngi fonctionner naam mais administration du liggéey les week-ends ku ci soxla certificat de résidence ñëwal wut ko les jours ouvrables boo demee ba week-end boo amee jot nga ñëw nga demander ko ñu jox la ko nga dem inscrire kon appel bi mooy jeunes yi nañu inscrire en masse nañu vigilant ci transfert yi ndax ñoom ñu ngi koy def te am nañ ci ay sur ay firnde yu leer tey jii ni may wax ak yow am na oto bu wàccee foofu fees fa dell ak indi yàpp ay nit yu fees dell yoo xam ne dëkkuñu fi ñu délivrer leen ay résidence à partir de la sous-préfecture pour ñu ñëw di inscrire kon lii conséquence la ci li ñuy wax malheureusement pour nous dafa fekkoon suñu élément yëpp nekk sur le terrain ndax ku ne xam ne ni tey inondation dafa am mais loolu bu amaatee suñu kanam di ngeen dégg beneen coow parce que ñun loolu duñ ko nangu te loolu opposition bi yëpp dañoo war a jàppale ci boobu xeex plutôt que ñu nekk di ŋàññante ci loo xam ne ñoom comprendre ñu suñu division bi ñoom ci la ñuy jaar pour mën a percer pour mën a am lu ñu bëgg ñoom ñu ngi liggéey ci ay transfert que ci loolu kese la ñu yaakaar pour mën a ñun nag li ñu yaakaar mooy suñu liggéey suñu bilan suñu résultat bi nga xam ne présenté nañ ko yëmbal waay mais yëmbal waay ñun ñoo leen war a protéger ba kenn du leen rax ba bu ñuy tànn seen tànneef kese daal di fës au soir du 23 janvier te loolu am nañ ci yaakaar pour ñu gagné ko largement avec toute l' opposition kon monsieur le maire taxawaayu opposition la taxaw taxawaay diriger tout l' opposition pour reconquérir cette commune te loolu képp koo xam ne da nekk ci parti opposition da nga ko ci war a jàppale donc loolu mooy ne bëggoon naa ko lancer tous les jeunes ci ñi nga xam ne bii loolu moom mooy li xew leneen li nag mooy gis nañu ni responsable politique gu APR yi ñu ngi jaar ci yenn délégué de quartier ñu leen di jox ay certificat de domicile yu fictif yu yu yu vierge ñu koy rempliral ku leen neex ñoo ñu di ko yóbbu ci préfecture ñu leen di jox ay résidence délégué yooyu nañu assumé seen responsabilité devant Dieu et devant l'histoire képp koo xam ne jàpp nañ la nga nekk ci loolu dinañ la yóbbu ci kanamu yoon buñ ko mënul fajee foofu dinañ ko faj à notre manière parce que nag nekkuñu fi di ubbi yëmbal tey jii yëmbal nekk na enjeu boo xam ne bi président de la république teg na ko ba tous les moyens sont bons pour gagner mais loolu duñ ko def sous la complicité des délégués de quartier am na ñun ci identifier am na ñun ci woo police am na ñoo xam ne ñu ngi leen di woo di leen di leen dànkaafu ci loolu pour ñu xam ne loolu ñun gis nañ ko te dinañ ci jël toutes les mesures nécessaires kon loolu dara jaru ko fi képp ku ci délégué de quartier na nga sa signature ak sa la woowee ci yoon sur sur sur la base de ces preuves lañ parce que gis nañ ay xale yoo xam ni yor nañ ko laaj nañ leen seen délégué de quartier nu mu tudd xamuñu ko sax sa quartier nañ la tudd xamoo ko kon loolu wax dëgg yàlla fraude yooyu jàpp naa ni délégué de quartier yenn yi waruñu cee waruñu cee dugg dinañ ci duñ ci xuus mais am nañ ci ay preuve yu leer nañu incha allah rabbi bu fekkente ni arrêté wuñu loolu dinañ ci ñëwaat dans les détails ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. ISM